jërëjëf mbokki internetu ami univers info ak B Pro amaat mbégte ak contentement comme ni ñu ko defee saa su ne waaye tey nag dañ toogal ndaanaan di am di jàmm si Modou di magam di xaritam di soppeem yor nag li nga xamante ne moo di organisation beeg yëpp di xaadim grand xaadim ñu ngi lay nuyu di la ziar bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi. ngi leen di fay waa B Pro vraiment. univers waaw di kontaan ci seen teewaay. ci direct bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a def ci feu de bi nga xam ne ñu ngi koy def parce que Modou saa yu bëre fête la au Parcelles Assainies dañuy créer ay innovation xale yi tàmbali nañ ko dina dem ba léegi chaque unité bu Modou di bëre war na mën a def feu de joie waaw feu de joie nag mooy fexe ba xale yi ànd kafre asiko booster Modou Lo ba bésu làmb ja mu doon gaynde loolu rek moo ci jublu parce que boo xoolee xale yi ñii mënuñu dem làmb ñi nga xam ne mënuñu dem làmb ak ñi mën a dem làmb ja ñëpp ñu fexe ba impliqué leen ba ñoom ñëpp ñu bokk ci fête bi nga xam ne loolu la Modou bëgg te loolu la ñu loolu la ñu prôné loolu lay ñaan ñu defal ko ko ñuy am yaakaar rek di ñaan yàlla euh, le premier janvier yàlla jaar fa mu daan jaar Modou indi ndam li passé à seen initiative bi depuis quand ngeen ko jël bu Modou di bëre ngeen defal ko li nga xamante ne moo di ndaw yu mënut a dem stade waaw boo xoolee tam ñi ko njëkk a tàmbali mooy ñoom Amet ñoom Amet je booy bi ànd ak Modou ñoom ñoo ko doon def akapes mais comme euh, ñu ngi toog programme akapes ak parcelle dafa yaatu ma ne naa ko def première euh, tranche bi fexe ba veyu làmb ji ñoom def nañ ko barki dem xaw ma dem ma ne veyu làmb ji bu ñu jógee open press bi comme làmb ji lundi lañ ko def ñu fexe ba def ko tey loolu moo doon objectif bi tey yaakaar naa ne lii c'est une très belle initiative Modou apprécier na ko boo xoolee ci kanam site yëpp nañ ko def direct euh, ki nga xam ne tey mooy promoteur bi tamit dina fexe ba parcelle ñëpp impliqué wu ci làmb ji ñu lancé benn message boo xam ne day pousser nit ñi ñëpp ñu mën a ñëw assister combat Modou Lo donc làmb fête la war a doon te euh, fête bi ñu koy créer moom mooy écurie bi ak fans club bi te yaakaar naa ñoom ñëpp ci impliqué wu. ñuy ñaan yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ñu am ndam incha allah rabbi Xaadim ñu di ko gis si li nga xamante ni moo di open press Modou ak si ginnaaw Modou sa digganteeg Modou non sama rakk la sama xarit la ama Modou Lo sama rakk la sama xarit la ba pare sama confident la dañuy waxtaan lu bari ku mën a téye secret la su ma amee lu ma lu ma jaaxal dinaa ñëw waxtaan seeg moom ci wàllu côté yëpp bon mu waxtaan ak man te aussi tamit mooy sama mbër ñu ànd mu nekk xale ba nu mu toll amul carrière am lenn luñ ci ëmp donc buy bëre dama ci centré sama bopp saa yu Modou amee combat sama deret day yëngu dama ci mën a ñàkk sama alal dama ciy mën a des sama coono ni ma koy sentiree daal ba amee combat bien vrai que président Rock Énergie la mais wallahi azim du ma sentir benn combat noonu loolu la yàlla def te yàlla moom ay dogalam kenn mënu si dara yàlla boole ñu bokk dëkk yàlla boole ñu mu doon sama xarit donc loolu rek sant yàlla la bàyyi ko ba ngeen war a dajeek Boy Niang naka ngeen ko waajee. waaw comme ni nga gisee rek parcelle est en fête parcelle est en ébullition ñëpp a ngi féete ñëpp a ngi kontaan te li signe de victoire la. ñuy ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu say jàmm Modou waaj na ni mu war a waajee wax jeex na jëf rek a des te incha allah wóolu nañ ko te gaynde la. mais état bi nga xamante ne moom la yo Modou yor dara changé aussi loolu amul lu leen si jaaxal. non dafa yokku boo seetloo état de bi mu yoroon contre Ama dafa yokk loolu nag ab sant la ak ak félicité Modou ak am mbégte ci nan la évoluer ci pendant fan parce que làmb boo nekk ah il est en compétition mbër muy compétir ak lu compétir bokkuñu. mu war a dajeek ak ki nga xamante ne moo di Boy mu ne Ama Baldé moo gën a danger Boy Niang loolu bi ko Modou di wax ba pare Modou day bëree ne làmb ji sama làmb la man loolu naka la leen di def. waaw làmbam la parce que ba ne làmbam la moom mooy dafa war a indi daf ñu war a indil ndam mooy li ñu defoon yëpp mu ne yéen ni ñi wàccoo ngeen man parce que li ñu def ni xaalis bu bari la te ko def uniquement pour booster ko keneen def keneen def démb gis nga open press bi nu mel li nekk doomu aadama musul am open press moo gis noonu ba ñuy dóor ay lacrymogène pour nit ñi bañ a tas affaire bi am ci bi ñu nekk ci mbedd mi. donc loolu moo tax mu naan man sama làmb la mooy li leen waroon def ngeen ko man maa ci des. ah li li nga xamante ni mooy lëmbee site internet beeg ak YouTube bi ñu ne affaire euh, dañ ko génnal benn way muy golo wàccal bukki yeg yooyu ñu. yooyu yëpp ay waxu làmb la rek loolu moom <laughs> ay golo ay bukki nekk fi naan ay fii jinne nekku fekk kuy naaw yooyu amul solo li am solo mooy ñaari sportif ñooy bëre ñaari compétiteur ñaari xale yu mën bis ñaari xale yu am entraînement ñaari xale yu fonk bis ñooy bëre ku ne am sa tactique ak sa technique de combat préparé wu ñun ñu indi suñu mbër wóolu ko waajal ko te xam niñ ko waajale te jàpp ni am yaakaar ne dina am ndam loolu rek la du leneen. xaadim combat bi lan la war mën a jeexee seen mbër xam ngeen ko. mën na jeexee ci xeex mën na jeexee ci bëre làmb ci ñaar rek lay jeexee xeex wala bëre. dégg <laughs> ma ne làmb ci ñaar rek lay jeexee ci xeex wala ci bëre. xeex wala bëre rek lay jeexee incha allah rabbi. xaadim bi dañoo xooj looy tàggoo ak ñan ngay. li may tàggoo ma invité ñëpp ci open press bi parce que ñëw ngi nii di leen gërëm aussi. waaw bii TV ak univers vraiment direct bi nga xam ni ñu nekk si diaspora bi ñëpp ñu ngi ma koy laaj ñoom ñëpp ku ko bëgg a suivre nga dem foofu nga xool xale yi ñëw dóor asiko yi rëkk ñu feete dem ginnaaw suba lëndi du moins Modou daan ñu ñibbi si continuer fête bi di ñaan yàlla. bu ci kenn loru bu ci kenn gaañu ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf jërëjëf merci beaucoup merci beaucoup Turismo na ñaar ñëw aca na ñaar ñëw waaw ah président Khadim ñu ngi ci final bi nag waaw ñu ngi ci final bi noo tudd yow. Mamadou Benga. maam monsieur Benja yow moo tudd. Mohamed ah kon nag gars yi DJ bu fekkee ne son bi pare merci en pour la qualité du son. Son et lumière au rendez ce soir ici au jardin de l'unité 11. Si le son est carré, DJ, on peut partir pour la finale. am na acca lii mooy lii mooy bac original mais si on peut remettre le son c'est plus vivant ñu dugalal leen ko le son de Congo moom lañ demee woon demi-finale je crois que mën na leen ko tegal finale donc remettez-nous que moom lañ qualifié woon mooy bac original parce que mooy sawar bi ngeen préparé yéen vous les deux ngeen xaar yéen ah. ok Ah? Thiat voilà vous mettez le di wax Modou lu ngeen di wax Modou Lo. Modou Lo. dégg ngeen xale yi ñoom ñëpp nee ku dul Modou Lo topp ñu la waa parcelle la ñu nii di dund li nga xamante ni moom mooy feu de joie bi di waajal li nga xamante ni moom mooy combat bi ñoom ñëpp ñu ne pare nañu ñoom ñëpp ñu ne gis nañu keroog démb nga xamante ni moom moo nekkoon Modou Lo open press bi ñu ne duñu bàyyi ñu ne Modou Lo ba après combat bi rek Modou Lo ba foofu ca stade ba rek Modou Lo ba foofu ca Pikine doon def li nga xamante ni moom la ñuy bëree li nga xamante ni moom mooy combat bi Pikine la waa Pikine aussi di xaar ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo foofu ñoom it la mais fii nga xamante ni fii la ñu ci parcelle moom ku dul Modou Lo daf ñuy xaar démb ko ci bonne dalal na xel waa parcelles dalal na ñi nga xamante ni ñoom ay ta kon dañuy dugaat ci biir ngeen gisaat ambiance bi nga xamante ni moom moo am kii nga xamante ni moom mooy ñuy waajal li nga xamante ni moom mooy xale yi génn na nañu ndaw yi génn nañu jeunes yi génn nañu ñoom ñëpp ñu ne déedéet ku dul Modou Lo day xaar ku dul Modou Lo topp ñu la xoolal xale yi xoolal xale yi Penda Talla ñëw na Penda Talla nee na Modou Lo may na waaw ku nekk ki muy topp ana fan si booy ñaay ñoom waaw lii lépp lii lépp lii lépp rek ah lii lépp ku nekk ki nga xamante ni mo nga bëgg. Penda na boo Modou Lo lay topp gis ngeen ñi ñu ngi gën di ñëw et pourtant guddi na mais ñu na du ñu ñibbi na Modou Lo jaral lii gis ko minute de son rek comme ça ma taxaw une minute nga xamante ni moom mooy ci biti rek gis ngeen gars yi ñun ñëpp taxaw nañu. waaw ñii défense sécurité bi ñii ñëw pour assister li nga xamante ni moom mooy ambiance bi vous êtes en direct sur Univers Info TV mais aussi sur Bprod Média tey maa ngi ànd ak nga xamante ne moom mooy sama waa bi waroon na ko fekk mu tëddi heure bi waroon na ko fekk mu ñibbi dafa fekk rek. mais dafa fekk xam nga benn signature comme ni ñu koy waxee rek lépp loo xamante ni jar na ko te mu doon actualité te mu nekk information te mu nekk lépp loo xamante ne dañ koy xaar ci li nga xamante ne moom ak suñu plateforme yi dañuy génn sur le terrain dem taataanal leen ko dem jëlil ko ci ay image yu rafet ci ay kàddu yu leer waaw fii moo xaw a bëri bruit ñuy yuuxu pour ngeen dégguñu mais gis ngeen ñi nga xamante ne noonu lañ leen koy jëlalee kii kan la Bara Sall aussi ñëw na ah ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp nee Lo moom mi ngi tooñ waa Pikine Lo ñu ko xale yi di waxee parce que nee nañu Modou Lo siège am la jël teg ko biir Pikine di rek di daan waa Lo Auchan la jàppee fi nga xamante ne moom ko sañ ngeen ko seen kàddu ko wax du man amat sañ ma ko sax yéen a ko wax yéen waa parcelle waa a bu ñu amee bu ñu amee bu ñu amee gis-gis ci loolu nga xamante ni waa Pastef wax nañu ko bu ñu ko bindee en commentaire ñoom it ñu ñu tontu nga xamante ni ñoom ñooy ñooñu kii kan la Modou Gueye ñëw na ah Ilimane Ndiaye baatu jour bi kon ñu ko kala ngay ngay ngay laaj ah mais rek xolo kii kan la Laye Messi Laye Messi nee na fii fan la fii parcelle la fii parcelle la waaw waa parcelle ñoo dund li xamante ni moom mooy seen feu de joie di waajal li nga xamante ni moom mooy combat bi di le premier janvier 2024 incha allah diggante Modou Lo ak ki nga xamante ni moom mooy naataangoom gi Boy Niang ñoom ñaar ñëpp gis ngeen li nga xamante ne def nañ ko ci seen open press yi ñoom ñaar ñëpp ku nekk mobilisé na ñoom ñaar ñëpp ku nekk liggéey na ñoom ñaa ñëpp ku nekk pare na ñoom li nga xamante ne moom moo ci des moom mooy ay fan yu néew ay fan yu néew ñu dund li nga xamante ne moom mooy bés bi nga xamante ne am na dafay xaar ñu dund bés bi nga xamante ni diaspora da koy xaar ñuy dund ñuy dund bés boo xamante ni amateur dañ koy xaar ñuy dund bés boo xamante ni supporter parce que tamit bés la bés la donte bés tamit romb na fi mais ay surtout que ki nga xamante ni moom mooy euh, Boy a bëri pour quatre combats ni a bëri pour boppam benn bi dafa war a bëri pour ki nga xamante ni moom mooy Eumeu Sène beneen bi dafa war ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé mais quatrième bi dafa war a bëri kon mu nekk benn charge boo xamante ni nee na ci kawam waaw ah, ñuy xool Modou Lo démb ngeen li nga xamante ne loolu la wax nee na lii man man tegu ma ko dara du ma pressionné waaw yóbbu ma ko maa ngi waajal li ma war a def maa ngi koy def Boy Niang aussi ne ko tamit baax na lenn daal lay wax waa Pikine mooy jooy jeex na. reetaan na des léegi nag li ci des jàkkatul fan yu la gis ngeen ko univers info ak bii Biro Média nii lay def génn sur le terrain dem taataanal leen ko dem jëlil leen ko lépp loo xamante i xew na rek incha allah nii lañ leen koy toppalee fii nga xamante ni moom la suñu plateforme yi j'espère que am am ngeen mbégte ci li nga xamante ni ñu leen koy couvrir ndax tamit yombul boobu ba tey ñu ngi ko jaral gis ngeen ko nii lañ leen ñëw si jour si tamit nii lañ leen ko nar a jàppale incha allah waaw dara dara dara du leen ubbul fii nga xamante ni ma mooy ci diggante Boy Niang ak ki nga xamante ni moom mooy euh, ci parcelle mais aussi nañ dem ca Pikine jëlal leen préparation yi wan leen ko waaw ngeen dund li nga xamante ni moom la Boy Niang tamit di waajalee ñi nga xamante ni moom mooy combat bi incha allah daal lépp lépp loo xamante ni bu ngeen ko jëlalee ver leen si ay image incha allah duñ ci bàyyi duñu reculer duñu bàyyi ñi leen ñeen koy jàppale duudu duudu duudu duudu lii rëy na mais man lii doon avantage sargal bi nga xamante ni moo di Modou Lo Fodozoa bi ndeysaan mu war a jàmbarloo ak euh, Boy Niang ndeysaan di dernière séance foofu noonu ca Pikine gis nga waa Pikine ñëpp jël nañu baaxoo ànd ak ki nga xamante ne nii moo di Boy Niang pour jàppale ko si biir boobu waaye ay ji muy dajeel gaa nee nañ ñax a faral dimanche la waaye gars yi nee nañ làmb ji du dimanche làmb ji di lay tombeel ndax loolu du am lu mu wax waxuma yi wax nee nañu Pikine au ñoom mën loo day di jënd di génn ndax sama wax la déedéet booy parcelle yaa ko wax waa Pikine yi nag la la ñu wax nee nañ golo wàcceel bu mu yéeg ndax bu mu a yéeg golo wàcc ndax golo day yéeg bu ki wàcc xaw ma gaa yee ko wax bu ki fër bay lu mu lëndëm lëndëm bu ki fër bay ñoom noonu lañu ko waxee lëndëm lëndëm bu ki fër bay léegi nag bu am du fër bay léegi des ay fan yu néew la mën nañ ko àpp si ñaar fan incha allah ñu dund li nga xamante ni moom la àdduna di xaar diggante Modou Lo ak nga moom mooy ah, Boy Niang mu nar a daal bés bu neex mu nar a nekk bés bu extraordinaire mais ak lu ci am rek nañ ko def ci fair play ak lu ci am nañ ko teg ci mënti am nañ ko teg si dans les de l'art ndax c'est na fi ku xool bésu Ama Baldé ak ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo xam ni ñoom lii rek lañ war a mën a dund ku ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo mooy lan mooy mooy ambiance nañ euh, neexal nañu làmb ji ku nekk wax na moromam lu ko neex mais tegoon nañ ko ci fair play ndax boo xoolee bi nga xamante ni Modou Lo daan na ki nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy Ama Baldé ñu bëri amoon nañ yaakaar que ni dina demee neneen noo xamante ni mooy li ñu gisoon mooy lan mooy Ama Baldé jóg na félicité ki nga xamante ne moom mooy Modou Lo Ama Baldé jóg na saafonte ki nga xamante ne moom mooy Modou loo Ama Baldé jóg ne moom mooy Modou ko demal yàlla na la yàlla na la ndam ji te aussi bi defee loolu gis ngeen tamit euh, ñi nga xamante ni moom mooy sénégalais yi ba ci askan bi ñëpp ñëpp a rafetlu woon loolu waaw parce loolu lañ doon xaar ci bés boobu kon tamit loolu la ñuy woowaatee ñi nga xamante ni moom mooy bés bu ak ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang parce que c'est le Sénégal qui va gagner c'est le Sénégal qui toujours loolu la rek. loolu la rek gis ngeen ko. moom que boo gisee xale yi mënuñu dem làmb de parce que làmb ak pression bi ci nekk ak danger bi ci nekk mais wane nañ ni ñun lu ñu am dañ koy indi bokk koog waa unité 11 bokk ni ngeen doon def nii. énergie ay mbër bële ci des centaines de millions tabax ci ay kër ci ñun la jóge donc bu demee ba tey moo di bëre combat royal de joie suñu yëg-yëg mooy organiser te feu de joie yëpp am a ngi maa ngi gërëm aussi la la directrice Mame Diarra Diouf ba bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax a baax a baax ndaw la Mame Diarra Diouf la ku ñun député ñoo politique di jàppale Amadou Ba nekk suma xarit lu ma takk mu takkati ñoom lay sax ak Aïda a xam ne fii mooy sama bureau ñooñu moom boole waale mu leen ma bëgg aussi asiko yi dafa kan nga taal fumigène yi asiko yi dóor seen dernière série grand Aziz yow mention spéciale booy dama bëgg ngeen tàcc grand Aziz ci initiative bii mu am ñun moo ñuy moo ñuy yar bi ñu nekkee xale mais ku bëgg xale la di sonn ci parcelle lépp lu ñu organisé ci équipe Rock Énergie moo ko organisé donc Aziz ñu ngi lay gërëm bu baax donc Asiko yéen la ñuy dégg dañoo génnee gars yi dañoo génnee son Modou Lo ñu bëgg ngeen tàcc leen ko bu baax a baax a baax parce que mën na mi ngi leen di suivre ci direct bi am na direct yi jàll. waaw rappeur bi waaw ñu jox rappeur bi ba pare. dafa am benn son bi ngeen di tëgg record bi boo ko génnee ngeen déglu ko bu baax a baax ci Modou Lo. Zala. Zal. soo ko yëgee génne si Modou Lo. waaw waaw boobu laa bëgg a wan gars yi soxla. kon ñu ñëw si kàddu day def. dañ ciy boole fi ambiance bi nga xamante ne moom mooy am piste unité 11 Modou Lo ngi ñëw. la ay waay Modou Lo ngi ñëw Modou Lo ngi ñëw. mais mais mais mais su ma sañoon nag Modou Lo day dem toog gis ngeen ko ñoom ñi ñëpp ñi ngi toog di supporter ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo. di ko dooleel ne ko ñun ak yow ba fii nga xamante ni moom mooy ca après combat ba ñoom ñëpp ñëw nañu toog dooleel ko ne ko Modou Lo yow la ñuy topp Modou Lo yow la ñu bëgg Modou Lo yow la ñu am Modou Lo yow la ñuy supporté Modou Lo yow la ñuy gunge kon mu ngi noonu mu ngi noonu vous êtes direct sur Univers Info TV ak bi Promédia gis ngeen ko nii lañ leen koy defaree rek seen actualité lépp loo xamante yi war na lépp loo xamante ni jar na ko du ñu bàyyi du ñu reculer du ñu tëddi du ñu ñibbi dañuy ñëw jëlal leen ko ay image yu rafet ay image yu extraordinaire mais aussi ay kàddu yu leer waa Parcelles ñoom ñëpp ñu ngi manifesté wu génn ne gis ngeen ñu nag Modou Lo ñoom ñëpp. ba après combat ba ñu ngi fi xam nga fii nga xamante ni moom mooy ci ci terrain bi waaw di di di li nga xamante ni moom mooy mbékk bi ñii taxaw nañu ñii nekk ci li nga xamante ni moom mooy ah, côté barrière yu xam ngeen animateurs yi journalistes yi ah, jeunes yi kenn kenn kenn desul ñoom ñëpp nee nañu ñu ngi ci ginnaaw Modou Lo ma ni leen ak lu ci mënti am ñii ñu ko defee fi nga xamante ni moom mooy ci parcelle noonu lañ koy defee incha allah fële nga xamante ni moom mooy ca Pikine dinañ fa dem dinañ leen jëlal dinañ leen jëlal li nga xamante ni moom la ñu def nii muy muy feu de joie yi dinañ leen jëlal préparation ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang dinañ leen jëlal départ ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang dinañ leen jëlal ah, convoi bi rek lépp loo xamante ni ah journée bi laaj na ko rek incha allah am nañu xëmmam teef defal leen ko noonu ngeen ko bëggee incha allah yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu mu ci mel ni El Malick Thiam démb ñu ko doon tudd ci li nga ba ni moom mooy direct bi ah Mbaye Diouf yooyu yëpp ñu leen di jaajëfal Pape Pape Pape Diaba Pape Diaba lii ah yéen ñëpp nuyu nañu leen ah yéen ñëpp ziar nañu leen bu baax a baax a baax waaw parce que parce que bu dul woon yéen du ñu taal li nga xamante ne moom mooy direct bi comme ni ma leen ko waxee woon ni ki démb rek waaw lépp loo xamante ni mbaa bi laaj na ko waaw kon dañuy dem jëlal leen li nga xamante ni moom mooy asiko yi booy commencé nañu dund li nga xamante mooy asiko bi ngeen dund ambiance bi. waa waaw Sénégal am na benn artiste bu des beneen bi boobu moom ñëpp PA la def PA la ñuy teewal muy ana Papa Seck te Papa Seck mi depuis nii loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw loxo yi ci kaw Papa Seck ci kaw loxo yi ci kaw di jeex son. ji rab moo ñu xëy ne ko foog ah, ah. duudu instant rappeurs yi ñooy ñooy ñooy def ñooy def seen mënin ci xew mi parce que xew mi ku ne xaj na ci képp képp koo xamante am nga ci wàll rek di nga jël sa wàll ci ndar bi comme ni ko Wolof di waxee mais li nga xamante ne ñun moom mooy suñu wàll mooy dañ leen koy commentéral di leen ko wan ci ay image yu rafet mais aussi di leen ko wax ci ni nga xamante ne la fay demee di ko wax ci ni nga sa liggéey rafet na ziar nañu la yaa ngi ci jàmm vous êtes en direct Univers Info TV mais aussi Univers Info TV ak Bprod Média waaw tey boo ñu doon wax préparation yi nga xamante yéen koy waajal Modou Lo lu ngeen ñuy wax. waaw bon ñu ngi préparé comme ni daan préparé rek du dëgg parce que ah bi mu bëree ak léegi matul deux mois. ci koo xam ne toog na Modou ba ñu doon contre Ama Baldé moom la ñu si daan bu soobee yàlla lundi premier janvier aux arènes nationales. en tant que père de famille tey boo doon wax nga xamante ñoom ñoo nekk Parcelles ak ñi nekk Pikine ci ñu def fair play loo leen di wax. Euh, damay félicité Ama Baldé Modou du ma ko sax te daf ko dëggal parce que bañ ko daanee àdduna bi yëngatu na ko Modou Lo dafa ñëw akolaat ko te ki lay a ko kon nag loolu mooy wane ne làmb foo agréé na d'ailleurs combat yi topp yëpp seen kay rek bi muy bëre ak Zarko biñ bëre seen kay dafa ñëw bëre Zarko Bombardier daal di bëre ak ki nga xam mooy Reug bi ko Reug Reug daanee dafa ñëw daal di koy félicité daal na ko bonne continuation loolu mooy sportivité kon nag nañ roy ci Ama Baldé nañ roy ci ki nga xam ne mooy Diène Kairé nañ roy ci ki nga xam ne moom mooy à Bombardier merci beaucoup mon père ñu ngi lay féliciter di la di la di la jaajëfal bu baax a baax ba tey vous êtes en direct sur Univers Info TV mais aussi Sine Bouy Promédia nii lañ leen koy defalee lépp loo xamante ni yéen bëgg ngeen ko ci image dañ leen koy wan lépp loo xamante ni soxla ngeen ko ci ay kàddu yu leer mooy ñaar damay dugg góob góob waxal waxal. damay dugg na ma rey. ah yaa ngi wax may waxee. voilà loolu nag. dégg ngeen bi nee na booy ñaar na moytu bi ak lu ci mënti am waa Pikine ñu ngi déglu ak lu ci mënti am waa Pikine ñu ngi seetaan ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a tontul ci nga xamante ni moom mooy booy ña bu ñu gisee booy bi nañ ko tontu nañ ne ko ah. Modou Lo gauche la am waaye ñu nit am nañ suñu droit Modou Lo du ma boo booram ñu ñuy tere suñu boor ah lépp lépp mais lii daal ah lépp da dans le cadre de bien lii daal lépp pour lan neexal ambiance journée bi lii daal du lenn lu dul lan sénégalais yi kontaan ak supporters yi na na na jeunes yi conscient xam ni ñun ñoo bokk lépp le jeune yi conscient waat xam ni c'est la Sénégal qui va gagner a jeune yi conscient waat parce que ku ci def naka sudul noonu buñ la jàppee yaa xay wéetoo ku ci def naka sudul noonu buñ la jàppee yaa xay wéetoo ak sa dina am ñoo xamante ne ay force de l'ordre nañ sol tenue mais aussi dina am ñoo xamante ne dañuy civil wàcc ci le terrain lépp loo xamante ne gis nañ ko te du yoon ñoom dañ ci def li nga xamante ne moom mooy li war te bu boobaa du am benn intervenant boo xamante dina ñëw ndax tey responsabilité boobu yow yaa koy jëlee sa bopp kon dañuy dugaat ci li nga xamante ni moom mooy ci biir bu fekkee ni ñoom ñi ngi def li nga xam mooy asiko bi ñu jëlal leen ko man ko bëre ba am licence yàgg na fa ndax la bëri sama borom say maas Pile jamaten kamaren kufa yoga mobo Yisimila sapoi Gramine jamalai jini bay non far So prindo gene drapoi Nanko dunga fa sarba nyari yon Ama fa awo a nyaren Pasal na jaga fakas Bala juga rakas Daw gene bramo khat non ga jare gran Yo fa popol mulis adrese ngor Orgol modi premier di or Fia di for Dama jare gen dan gen jakalo Isam kumon ya di di Doubalès ñëw na ko ndax moom mooy yaakaar si Doubalès Cheikh nag doo ko dëgg Cheikh ñu ko bëre bu ñàkk Serigne Diouf amul njëriñ Aliou Siyaar nga ko ci dóor ci suuf dafa bàyyi bambara ñëw na ko bëre ko ci bëgg xar ñu fa ko commencé ci passé bi voilà lay bi ak lu jox ko da ba mu doon ngeen instant bi doon tool doon mel na ko doon ay ma ko doom booy kéré ñëw nga jox ko tur man ati dóor mu doon toog daal di lee mu ne ko eh Papa Ndiol bi sa loolu lamb jëlee ñu boole dañu woo fa ci Tamba rek si moo tax ñu yuuxu la Tamba jar nga tëj ci bi di crise xam ne amuloo carte crise mënuloo ay jaral wax ci ñu bari bëri mu teg la kenn ko toog toog foog ñu gëm la a mboro la eh boo eh, eh. waaw waaw waaw mais mais mais Baye Doudou mais daal de parce que lii ma gis si li nga xamante ñu ngi koy wax booy ñaaw mais ñoom ñoom daal ah mais am lu ci mën ci am ñoom sañu wax mais ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo moom mooy dugg si géew bi ki nga xamante ni moom mooy Boy Niang moom mooy dugg si géew bi waa Pikine lu ñu mën ci wax Modou Lo waa waa Parcelles lu ñu mën ci wax Boy Niang lu ciy mën ci am Boy Niang ak Modou Lo ñooy taxaw ci géew ñoom ñaar ñooy des ci géew ñoom ñaar ñooy jëflante ñoom ñaar ñooy wanante ku nekk moromam kani man maa fi nekk ñoom ñaar ku nekk mooy wan moromam kani man maa mën ñoom ñaar ñooy wanante ku nekk ni man maa ëpp doole yàggatul nag yàggatul ndax tey ñu ngi ci la 30 31 le premier mën nañu ñaari fan ci des ndax minuit jot na minuit jot na kon jàpp nañu ñaari fan ci des kon ñi des yàggatul ñu dund li nga xamante ni moom may bés boobu mais comme li ñu waxoon rek moom la ñuy waxaat. mooy dañ ko def ci fair play dañ ko def ci ambiance dañ ko def ci sportivité c'est très important ñu doog ngeen xoolaat xale yi ni ñuy dundee li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy ambiance bi ñoom toog nañu waaw toog def seeni sañse toog ci bàyyi di móodloo móodloo rek móodloo móodloo rek ma ni leen tañ leen ko nii aussi ñu toogee noonu lañu demee incha allah suba ca Pikine jëlal leen ñoom seen point de joie ñu def seen ambiance ñu wax ak Boy Niang ne ko yooyu loolu la ñuy topp comme waa Pastef liñ ne Modou Lo lañu topp ñun ñi nga xamante ne ñooy waa Pikine ñun topp ñu ku yow yow la ñuy yow la ñuy yow la dooleel noonu lañ leen lu koy defalee parce que du ñu rek ñu nekk Pastef la ñuy yem déedéet dañ koy def cinquante cinquante waa Pikine gis ci seen bopp waa Pastef gis ci seen bopp support supporter Modou Lo gis ci seen bopp supporter euh, Boy Niang gis ci seen bopp ñu xam ne daal univers import bi promédia ci digg bi la nekk mayonnaise la ku yar sa mbur rek soosal nii rek lañ leen koy defalee ah j'espère que kontaan ngeen ah j'espère que kontaan ngeen. voilà merci merci El Hadj Diouf sur ce joli truc courant bi du dem fii lay des. man dama tuddee courant bi dem dikkaat daf koy yóbbu affaire yi di waat alors donc nous allons terminer maintenant bientôt waaye nag dafa des. ASICO non yëngal ngeen fii sauvé ngeen fii donc dañu leen di baax ah ça va day laal. waaw waaw waaw bi may ko may ko on vous remercie de fond du cœur c'était ça pour aujourd'hui incha allah demee ñu jëlal te leen li nga xamante ne moom moo war a amaat fii ci parcelle mais fële nga xamante ni. vraiment vraiment naaj na. lii lañ ci waroon objectif bi. ñu ñaan yàlla dimanche yàlla may ñu ndam dégg gaaw. bu sedd guy. xale yi nañu. foo nañu ree nañu. kontaan nañu gis nga. ñun ñëpp nañu. ndeysaan ñu ngi cliquer sànq ba léegi naan Modou xarañ yow Modou xarañ yow nga def initiative bi déggee ko ak xale yi. xam nga mënuñu dem stade. waaw xam nga xale yi mënuñu dem stade mais mën nañ leen bëggal. balaa jour bi. merci beaucoup parce que loolu initiative bu bien la rek. parce que tey jii ñun parcelle rek la ñu am te Modou suma xarit la. Modou man maa ko bëggal suma bopp. mu doon suma confident. may waxtaan ak moom lu ma neex ak lu ma naqari. en dehors de la lutte di waxtaan ak moom diine. ba pare ñu bokk dëkk yàlla boole ñu. donc suñu organisé li parcelle yëpp daje. ñëw animé. Euh, groupe euh, ASICO yëpp génn artistes ñëw man dafa kawe sama njort mooy remercier ñëpp di ñaan ñu dugg ci làmb ji ci ndam ñëwaat ma amul lu parcelle te lépp lu nga xam ne su ma ko defee parcelle dinañ kontaan rek dinaa ko def mais mais avant ñu la bàyyi comme que vous en direct sur Univers Info ak euh, bi Promédia woowal waa parcelle mais aussi waa Pikine ci fair play parce que tamit journée la boo xamante ni waaw ñu si bëri dinañu am dut ni mën na demee noo xamante ni du rafet en tant que euh, doomu parcelle en tant que père de famille tey bu fekkoon mën nga wax ak jeunes yi nga xam ñoo nekk parcelle ak ñu nekk Pikine ci ñu fair play te ko ci dans les règles dara loo leen li mu leen di wax rek mooy ñu gën a ànd ak dal ak gëm gis nga man mm-hmm. comme xale yi foowee naa fii nekk naa fi def fii laa jàngee def naa fi élection nekk naa fi conseil municipal nekk vice euh, président commission sport et loisir def fi làmb bokk lekk membre fondateur Rock Énergie mu dem ba toll fii ma nekk secrétaire général jiite mbëru Sénégal yëpp bu président yi toogee man la ñuy jox uh-huh. mu dem ba ma nekk président écrit Rock Énergie donc lu ma am dama ko war a delloo parce xam ne affaire du ah nii la war demee làmb bu amee gars yi daje gis nga tey open presse kii yëpp am feu de joie yëpp da ngay gis ay uh-huh. agression ah am ay sama copain lutteur yi ñoo ñëw assuré sécurité bi uh-huh. amul xeex amul agression amul dara artiste yi ñoom ñoo play ñu ngi koy lancer appel waa Pikine ñu ñëwee noonu mu doon fet ñu bëre le maire gañ incha allah ñu daal làmb ji du commencé ci jàmm jeexee ci jàmm Modou daal incha allah rafet na rafet na rafet na rafet na incha allah gis ngeen ko kon mu nekkoon loo xamante ni moom lañ leen jëlaloon fii nga xamante ni moom mooy ci parcelle waaw te aussi tamit nii lañ bëgg dafa leen ko fële nga xamante ni moom mooy ca Pikine parce que comme niñ ko waxee sànq cinquante cinquante lay doon on n'est pas pour pour waa parcelles yi waaw mais aussi newuñu fi tamit pour ñi nga xamante ne moom mooy waa Pikine yi mais dañuy ñëw pour jëlal leen li nga xamante ne moom mooy am fii nga xamante ne moom mooy ci parcelle mais aussi noonu leen koy defalee tamit foofu ca xamante ni moom mooy ca Pikine lépp loo xamante ni yéen suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy suñuy internet bëgg ngeen ko rek incha allah du leen umpu nañ leen ko toppal nañ leen ko jëlal sur ce portez-vous bien très bonne nuit à vous à allah gars yi am leen jàmm. bëgg nañ leen jërë ngeen jëf ñii rek lañ koy defee saa su ne mi ngi noonu jërëjëf ah amul saaga Boy boy xoolal taxawal bu ngeen bëggee wax bu ngeen bëggee wax da ngeen di nite taxaw benn place wax correctement sinon ñu bàyyi ko de. voilà Ama Baldé booy booy booy ñaa kii Modou Lo no gisee. boo ñaa waaw boo ñaa parewul si physique parewul si si dërëm. bilaay walaay su ngeen ko jàppee. Modou bu ko jàppee. waaw du puus du paas. du puus Modou bu ma Modou bu ko koree. waaw Modou bu ko koree. Modou bu ko koree Modou bu ko koree. bu xàccee day nelaw. jeex na jeex na mayal kii yow nga ne. Ah, waaw. yow nga ne bu ñu jàppee. booy ñaar lu ma fa rële ma jëlee jéego. dégg su ma ko jëlee jéego su ma ko nee kër mu foog ni malaaka bi daf kaa jaawal. ma. ma ne ko si barki naa ma rabi naa mën a jëlee jéego mën a faral Sénégal dara naka dëgg mara ma ñaar nga xam ne day daal di péréer. Eh. su ma ko joxulee ma xam ne dawul dara amul kot te loxo amul antifa billaay walaay mooy ah duñ la jàppee moo xam ne lu ko fekkee ñeengu ko te lu ko tëbb ko moo ko billaay walaay taala ala du xol xolo gis naa ko mi def affaire mystique am yooyu na def lu ko neex na pare rek mag ay mbokam dinaa ko duma dinaa ko tànn ñu ngeen dégg booy ah, ñaay ku am sa mbër ku am sa duudu ah, gis ngeen yaay dégg ngeen ko kon kon kon xam naa Baye Doudou Baye Doudou dañuy dagg fii direct bi ñu coupé wala gars yi gars ñu coupé wala ñu wala ñu bañ a coupé ñu coupé nañu xool benn 30 secondes xool xool ba xam ngir Modou Lo ndeysaan mi ngi noonu fo de joie la waaye di dimbali li nga xamante ne moo di xale yi xale yi nga xamante ne Modou Lo rek yow tey lan nga wax Molo. mais namba essayé mi xaar wóor na yàlla. mu moytu mu moytu sawaay. mu moytu leen. ah non ah, pare na de. essayé ñu ñoo ñoo gën a pare. wallaahi gis nga keroog li mu ko wax. ne na ko jooy dafa jeex reetaan na des. pikin di ngeen ree. Molo ni la ko ko boo jooy jooywaat. ah na yàlla. jaajëf. ñu noonu. waaw ah, kon gars yi sur ce. j'espère que kontaan ngeen ci direct bi nga xamante ni jëloon nañ leen ko niki sànq ba léegi. lépp loo xamante ni information la lépp loo xamante ni actualité la lépp loo xamante ni yittewoo ngeen ko ci bés bi ñu dëgmal incha allah dara du leen ci ump xemmem tëf bi loolu rek la woon moo waral ñu wàcc sur le terrain waaw et pourtant depuis ce matin ñu ngi sur le terrain mais xam nga du ñu bàyyi du ñu bàyyi waaw yéen ñu ko jaral donc fii lañ leen di waxee nii nañu nañu nañu nañu nañu dem ba beneen suba yàggul. waaw bu ñu génnaatee rek jaatal leen beneen direct boo xamante ni mooy gën a extraordinaire lool donc gars yi sur ce portez-vous bien et à demain incha allah merci jaa ngeen jëf